mbokk internet yu sans limite ginnaaw bu ñu leen nuyoo da leen jàmm ci récap du jour benn mbir la ñuy waxtaanee di mbir ki nga xamante ni wala sax livre bi nga xamante ni daal dina koy génnee tuddee ko Macky Sall face à l'histoire livre ba nag bëri révélation yu doy waar biñ ci jukki ca chapitre 16 ba la nekk di taxal wala sax di seetal bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall jëm ci li ñu koy tuumaal mal wàllu complot ci suite bote bi bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Yérim Seck nee na 2019 euh, police nationale la doon def patrouille di wër mbeddu Ndakaaru yi dem ca corniche ouest ba yam ci président Ousmane Sonko ak benn femme nationalité gambienne ci anam bu doy waar ginnaaw gi nag la ko daal di xibaar ki nga xamante ni mooy ministre de l' intérieur ñu daal di nëppal nëppal mbir ba bu ñu sukkandikoo ci kàddu Cheikh Yérim Seck noonu la ko waxee. jeexagul ba léegi ca biir livre ba nee na euh, deux mille wala sax nee na ginnaaw gi président Macky Sall xibaaraat nañ ko ni ko Ousmane Sonko gis nañ ko ak benn euh, soxna boo xamante ni euh, résidence am wala sax dëkkam mooy Maroc gis nañ leen ñoom ñaar xamante ni mooy président Macky Sall ni loolu c'est sa vie privée maanaam vie privée la moom la ñor ñun suñu yoon nekku si moom Cheikh Yérim ba léegi mooy wax nee na nag président Macky Sall mi ngi yëg plainte ba nga xamante ni Adji Sarr daal dina koy jébbal euh, gendarmerie euh, section de recherche ba leen di jébbal euh, li nga xamante ni moom mooy plainte ba nee na moom président Macky Sall ca lan demee bu la ko yëkk kon bu ñu xalaat benn yoon complot ci digganteem ak Ousmane Sonko moom daal bu ñu déggee ci ni mu waxee nee na amul benn complot bu dox ci diggante Ousmane Sonko ak président Macky Sall maanaam président Macky Sall nekkul benn yoon ci ginnaaw li ñuy njort ni mooy tuuma. teg ko ci moom euh, muy complot digganteem ak euh, wàllu Adji saa ak Sweet boote ak la ca toftalu président Macky Sall yëgul euh, tigul nee na nag dégâts yi nga xamante ni am na ci loolu yëpp nag président makk Sall yoonam nekku ci bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Yérim Seck livre ba nag dinañ ko gën a càmbar lépp li nga xamante ni am na ay révélation dinañ leen ko daal di dégtal wéy leen di abonné seen site d'information bi di sans limite tv daara du leen rëcc ci réew mi